Ousmane kàddoom yi mu yëkkati daa xam li muy wax. Mhm. ndax accident du caagee am na takk fi mu am ñu ko constat foofa lijjanti ko mais da war a xool fa mu dep ban garage la départ. loolu wax na ko sax. waaw moom foofa la ñi mu aw ñi mu romb ñi ko contrôler ba fa mm-hmm. defee accident ba. Mm-hmm. ak visite technique bi sax fàtte waaw visite technique béeg yëpp mais gisal léeg-léeg da ngay da ngay yéeg si ab oto police bi ne ko taxawal moom mu ñoti pour taxaw <laughs> mënut taxaw. mais police ba day daw war a songi moto ba euh. war a songi war a mu daw taal otom pour war ko dàq te xamul ni waa daa ah. ngi jéem a taxaw <laughs> ah, yëpp du dëgër bopp mais ba du dëgër bopp mu ñàkk mën a taxaw la dégg naa la léegi nag bu kooka taxawee nag arrière di arrière di ñëw mu doog a wàccaat taxaw na ko da nga jéem a daw ah fekk waa ji amul amuti frein day taxaw fa wala mu wàcc fa daw nii <laughs> daa moom mu dem xool waa ji lan moo ko tax munta taxaw mais moom daa yaakaar waa ji day daw dégg naa la mais waa ji bu ñor ñotee ba taxaw sori na ko mais day marché arrière di jéem a ñëw nag mhm. ma ko ah, da ngay jéem a daw maanaam arrêté ngay ngay daw looy daw lii daa mel expérience la de waaw mu ne ko non dawuma sax xam nga rek mu ne ko da nga doon daw da ngaa mm. gis may taal moto bi moo tax nga taxaw fekk na mm. mënutoon a taxaw d'accord <laughs> léegi nag loolu li ko waral mooy ñàkki frein <laughs> waaw kon ñooy gars mu ne ko dawuma sax xam nga rek mu ne ko da nga doon daw da ngaa gis may taal moto bi moo tax nga taxaw fekk na mënutoon a taxaw d'accord <laughs> léegi nag loolu li ko waral mooy ñàkki frein <laughs> waaw kon ñooy gars yi il ñu xool ni ku ñu arrêté bu taxawuti ñu xool kii <laughs> oto bi ndax bañ oto bi a taxaw bu jëlee bi nga dawal oto bi tuuti ji frein oto bi loolu loolu nga war a xam waaw mais ñoom yooyu yëpp xaj na bàyyi wuñ si xel hmm. léegi nag moom comme que li mu wax nii dafa am solo trop ndax policiers yi ñu ngi si bëgg a yeewu ndax gis nga euh, vidéo bi El Malick waaw yónnee woon nga ma keroog léegi gars yi oto boo ko arrêté buy dem mën ngaa bañ a gis weer saa yi mais ay ban leen roof bàyyi kaw si yi nga xam ne bu àjjee frein bu baax rek kenn ki day jóge si ginnaaw ñëw si kanam waaw ndax frein bi. dañuy jaxasoo ay bañ a jaxasoo ay ban lañ toog. Mhm. léegi nag loolu lépp it ginnaaw ñu ngi koy xam ñoom it police yi ñuy leeral ni ñun kat yi ñuy tuumaal yëpp yenn yi. waaw nee na yéen a ngi tuumaal di tuumaal nguur gi. te fekk yéen a. voilà léegi ñoom am solo. bu mhm. ñii di film di leeral liy xew ñoom it ñuy film di leeral liy xew. effectivement da ciy baax en tout cas bu ñu bëggee defar réew mi mën nañ ko defar ñun suñu biir ak takk mhm. nañu déggoo ñun ñëpp rek te teg ko si yoon. xam nga man fii nii doon naa daw. ab police ni ma pir ma ni xiij taxaw mu ne man non yow yow dama lay bàyyi nga dem. mooy fi nga kii yéen ne mun la waaw waaw. police ni ko ni ko ni nga droité dafa nice quoi demal. droité bu nice taxaw mu xam ne oto bu baax laa yoroon. waaw da ngaa laal rek taxaw. waaw bu baax laa yoroon. waaw bu baax loo ko laaj dala koy jox mais nag oto boo xamante ni sa maama ko yor dawal ba sonn sa baay jël dawal ba sonn nga judd yow jël dawal nga oto oto bi sëriñ ma ngénte respecté oto bi <laughs> am na vidéo bu ma la envoyé yaakaar naa hélas li mu daan wax fan yi naan diggante bi laa ko daw envoyé naa la waaw waaw benn hélas tubaab waaye naan waaye yow diggante bi li ma non ko non kooku sax El Malick war na ko ko woolu mu naan nii laa ko daw dama ko daw nii bi ma ko defee nii kii gars yi wane ko mu naan nii si tali bi aa yooyu kii wut ah, nañu jël client yi ñu daw ndànk dal ndànk moo gën quoi tey ñu ñu ñu ñu teg yëpp si yoon daal incha allah macha allah joxe hélas premier ministre Ousmane Sonko lii la wax muy ay matuwaay yoo xam daal xaw naa bi mu koy wax man bi may dégg